di gërëm itam nag waa nguuru Sénégal ci njiitalu président Macky Sall ndax loolu bokkoon na ci li nga xam ne sëriñ bi waxoon na ma ne naa ko jottali nee na mi ngi koy sant bu baax di ko gërëm ndax moom yàlla da ko boole moom lu yàgg njëkk muy nekk jataayu sëriñ Touba mu am ci moom yaakaar lool nee na bi jataayu sëriñ Touba bi ak see itam yaakaar ji gën a yokk nee na nag mi ngi seeral bi sëriñ Touba yëpp.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 ak étude bi nga xam ne ci weeru septembre bii lañ ko war a tàmbali ngir xool réseau bi ak li koy defaraat xool liñ ci war a sensibiliser lépp ak fexe ba ndox mu neex bi ñëw Tuuba eh, cabinet ba ko ba ko war a defar gagné na marché bu war ko tàmbali septembre bi loolu itam liggéey bu rëy la boo xam ne itteeloon na sëñ bi ndax sëñ bi damaa waxoon ne ma xamalal ma ko ne ko ci université bi bu toon moom day somb bu rëy waaye kon ci ndox mi sama yitte ci laa koy jëmee. loolu itam ba mu ko yëgee def na ci yitte ak yeneen yi nga xam ne teewlu nga ko waaye loolu rek mën naa ko ci tudd ngir sant ko bu baax ci ni ko sëriñ du mu Mountakha santaane di ko ñaan sëriñ Touba mi nga xam ne lu ñu def ci jëkk bi rek moo tax yàlla na ko ci fay lu koy njortoon